صحبه لفظت بنا المي asalaamaaleykum ñu ngi sant bu baax di nuyu ñëpp di leen ziar di bég bu baax a baax di santaat bu baax di wax jërëjëfe Serigne sëriñ jërëjëfe jër Touba jërëjëfati Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Rama Fall jaraw lakk si Ahmadou Ndumbe Xaabaan kon bu ñu gisee lii rek ci waxtu wi ku ne xam na ni bu ñu demee ba dugg mois de octobre xel yëpp day dem ci ngóob tool Cheikh Mandoumbe Xaabaan yi nga xam te ni moom la daan liggéey bu liggéey bi noppee mu jël lépp jébal ko Serigne Touba naka noonu sëñ Modou Xaabaan di ko daan def sëñ Mamour Mbacke Dendey sëriñ saam ba ren liggéey bi ki ko jiite di sunu jëwrin di sunu sëriñ sëriñ Modou Xarim Mbacke ñu ànd ceeg Serigne Xaadim si mi nga xamante ni moom mooy Baye Fallou kër gi di généralu sëriñ Modou Xari ñun ñëpp ñu takk laxasaay ànd ak moom. fas yéene waat feddalewaat suñu kóllëre waat suñu laxasaay gën a takkuwaat bu baax a baax a baax xam ne nag lii ak cant la ci ñun ndax ku ruuj ab tool ji ko bay ko ba dara desul lu dul ngóob ma mu woola ca ni la kaay góob kooku dalaa yéeniw yi waaye su ko neexoon defal ko boppam kon Mbacke Balla ñi ngi santaat bu baax bi ñu woowee di ci bégaat bu baax bi ñu yéenee aw yiw ba tàbbalaat ñu ci liggéeyub sëriñ Touba bi sa liggéeyub maam bi nga xam ne moom la sëñ Mandumbe daan def di ci dundal njabootuk sëriñ Touba gi ndax ku ne xam na ni bi sëñ bi demee ci géej gi sëñ Mandumbe moo yoroon dundub kër gi te yëg nañ bu baax xam ne ku ne dégg na ni maanaam dund bi nga xam ne sëñ Mandumbe da daan jël di ko jébbal waa kër Serigne Touba dugub bi ren jeeg ju daaw ja da daan fekkante dañuy faral di wax ne nawet lu mu ñàkk-ñàkk boo demee dénday baa nga dem xàbbaan di nga ko fekk dugub kon liggéey bi ku ne xam na ne am na barke te am na cosaan cosaan loolu nag moo waral suñu ndaje tey fii ñu nekk fii ci Touba Thiès Touba Dendey kër Serigne Khadim si ànd ak njaboot gépp laxasaayu di waajal bernde yi nga xam ne moom lañu ñu war a xéwloo suba ca tool ya waaw gis nga neen ko gisee nii ci vidéo yi bu ko defee soxna yi ak góor yàlla yi yëpp ñëw fi ànd ak nit ñi waa koñ bi ak mbokk taalibe yëpp laxasaayu def benn say fexe ba maanaam bàyyi faal yi nga xam ne suba dañuy xëy nekk ci tool yi ñu fekk leen ak ay ay xéewal ànd ak ñoom liggéey ba pare jox leen ay xéewal ñu ñu xéewalu bu baax a baax waaw ndax ku ne xam na ni sëñ xaalim si jàmbaari sëñ ma Mandumbe ji sëñ sëriñ Mamoor Mbàkke Dendey jàmmoori jàmbaari sëriñ Saam ji jàmbaari sëñ Moori Xëri ji moom la sëñ bi jël lépp li nga xamante ne mooy benn yi ñu war a jëfandikoo ci li nga xamante ne moo di mbooleem daara yi yi nekk Saam daara yi nekk Dendey daara yi nekk Loomeen lépp luñ fay xéwloo sëñ Xaadim si moom moo koy waajal fii ak njaboot gi ak mbokki Cees yi mbokki Cees yëpp ñoom Baye Abdou Gueye Mouride Sadikh mbokki mbokki yi nga xamante ni mooy mbokki bayti yi fu ne ñi nga xamante ni ñoo fasantikoo rek mbokki Kër ma Masàmb te tënku ci waa Kër Sëñ Manumbe ñëpp ñu booloo topp ci ginnaawam doxal liggéey bi ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu borom guddal fanam sëñ Xaadim suñu borom wéral ko suñu borom mottali yéeneem ndax yéeneem ci sëñ muy yéeme na yéeme goo xam ne barke sëñ Tuubaa képp ku dul jaxasoo moom wala nga koy jigee am na nu muy doxee noo xam ne doo ko xam waaw barke sëriñ Tuubaa ndax ku ne xam na ne ci màggal lañ jógee jóge ci gàmm ñëwaat ci ngóom yi te diggante bi matul ñaari weer daanaka te sëñ Xaadim boo koy xool day mel ni kuy waajal màggal ak Tuubaa ndax ndigal moom bu xësee jóg rek ndigal jóg na mu nàmpatal ni ci loolu ñun ñëpp. ñu nekk ci di góorgóorlu kon ñu ngi santaat bu baax di ñaan daal suñu borom defal ñu tawféex ak taysir ak ay xéwal yu yaatu barke borom Tuubaa ba Mbàkke baax la li nga xam te ne noonu nga bëggee sa liggéeyu maam bi nga amee ko nu kawe njort ñu ànd kook yow waaw li nag maanaam comme suñ xaadim li wax rek liggéeyu suñ Tuubaa moom kenn du ci yërëm kenn ndax tawféexi kese la képp ku lay liggéeyloo ci sëñ bi maanaam dalaa bëgg dimbali rek bëgg laa dimbali rek moom moo tax mu lay liggéeyloo waaw suñ xaadim day faral di wax ne liggéeyu sëñ Tuubaa ak joxe addiya du ma ci yërëm kenn ndax njariñ la ca ne ak pay ga ca ne borom ka koy yërëm boo ko xamoon doo ko yërëm ndax boo boo ko yërëmee day mel na nga ko soxore kon suñ xaalim lii nag ab sas la waaye di la wax rek sa ñun day xam nañ bu baax fi nga toll ci sëñ bi gis nañ bu baax sa te xam na tamit ñun tey foo geesoo rek gis ñu généralu sëriñ bi xamal ni am nga ay lieutenant am nga ay capitaine am nga ay sous-officier barke sëriñ Touba yoo xamante ni maanaam fépp bu liggéey bi taxawee rek boo gëstoo di ñu gis bu soobee suñu borom doo ci wéet mukk kon ñi ngi santaat bu baax a baax loolu mu nekkoon ay kàddu yoo xam dañ ko doon yëkkati rek ngir leeral mbokki taalibe yi ak jottali ay kàddu yu cant ak ay kàddu yu ngërëm jëmale ko ci képp koo xamante ni maanaam rek yaa ngi safoo sëñ bi di safoo déndey di xamaan ni maanaam waxtu wi moom buñ ci tollee rek ci lii rek la ñuy dëgmal mooy liggéey bi fexe ba mu lépp yemb ndax li ci yemb lépp bu noppee ci sëñ Tuubaa la jëm waaw amul benn loo xam dañ ko ciy jaay wala leen loo xam dañ koy jël di ko jëfandikoo wala di ko jëmale fenn lu dul kër sëñ Touba comme na ko sëñ Mandumbe daan defee di ko liggéey di ko jébbal sëriñ Touba kon lépp day delluwaat ci sëñ bi ñi ngi santaat bu baax a baax a baax sëriñ Touba Xaadim Rasul suñu yaakaar tey ak ëllëg santaat bu baax a baax sëriñ Touba sant goo xam ne am na fu mu tàmbalee te amul fu mu yem waaw ñi ngi santaat bu baax mbokki taalibe yi di wax jërëjëfe sa sëriñ Touba jërëjëfati sëriñ Touba kon bu njabootam tamit ñi ngi fi teew njabootam yëpp a ngi fi ñoom soxna moomi ñoom maam jaara seen waa kër ñëpp a ngi fi depuis ci ngoon ba léegi ñu ngi ñëw ànd ak ñun liggéey bi jóge ba kër ma Touré lii rek doy na sëkk ak sant nga nekk ci aw yoon tàggat ci sa njaboot ñu dem ba màgg ba foo nekku ñu mën la faa wuutu doon ay soxna loolu doy na sëkk doy na sëkk ndax ku ne xam na ni ñoom sëñ Fallou ñoom ñëpp tey bu leen fi fekkoon ñoo ñëw taxawi liggéey bi waaye fañ nekk xaw naa sori nekk ci tukkee yu demee noonu moo tax ñëwuñu waaye soxna yi mate nañ lépp kon soxna Bintu ñu bàyyi la rek nga sànni ci ay kàddu ci turu Kër Ma Touré turu njabootu Baye Ablaye yëpp jëmale ko ci li nga xam te ni moom moo di liggéey bi ah macha allah bisimilahi rahmaani rahim jërëjëf Serigne Touba sant nañ Serigne Touba bu baax a baax. ah comme ni ko bàcce waxee rek danoo ñëw fii ci ngóob mi ci ndigalu Baye Abdoulaye Ñing jàmbaari Cheikh Mandoumbe mbaake ndax kenn uppalewul ni Serigne Modou Khary Mbacke xaadim la dénk liggéeyu waaj wi léegi nag ñun amuñu lu dul Cheikh Mandoumbe léegi xaadim yaatal liggéey bi ba boole ci ñëpp moo tax tey ñu ñëwoon fii ñëw ci togg yi teewal fii ab laay Gningue ndax ñun bu ñu teewee mel na ni moom teew na waaw moo tax ñu ñëw ànd ak xaadim di ko ñaanal it gudd fan ak weer lu mu man ren bala mu balaa déwén yàlla na man lu ko ëpp taal yaa ngi nii ku nekk ak sa mbana ñu ànd ak mbégte mi di liggéeyal Serigne Touba waa sant rek bu baax a baax a baax ndax euh, si liggéeyal Serigne Touba ak Serigne Touba liggéey loola bokkul te wér nañu wóor yàlla ni xaadim sëñ Tuubaa da koo liggéeyloo waaw te it boo toppee ci moom di nga yëgg ci sëñ ba tey ji buñ beroon suñu yoonu bopp peut-être fi ñu mën a yeggale ñun mënuñu faa yeggale suñu bopp mais bu ñu jàppee ci moom rek dinañu yóbbaale ci sëñ waaw moo tax dañ koy ñaanal gudd fen wér yàlla boole ko ci milliardaire Serigne Touba yi chaque année muy gën a man ngóob mi ci barke borom Touba bu subaa rek ñu yóbbu mbana yi dende waaw ànd ca ngóob ma pare yekkal leen ko ndax murit moom bernde lañ ko xamee moom waaw lekk ba suur naan ba mandi waaw ñu ngi sant bu baax di gërëm waaw dégg nañ torop siñ bàcc soxna Bintu kàddu yi mat na matale na macha allah kon lii rek doy na sëkk firnde di gis ni waa ñi comme ni ñu ko bokkee ak soxna yi ñu takk seen laxasaay yàlla xam ne danga naan sax ñoo gën a bëgg góor yàlla yi waaw ndax ñoo ñu gën a sawar ñoo ñu gën a actif ñoo ñu gën a ñeme tàngoor yi wax dëgg yàlla su leen neexoon tey ñu solu yaasu dem toog kenn du leen wax dara ndax seen i morom dañ koy def waaye yàlla xam na ni ay ay ay mënuma sax ay yaay faal waaye ay baay faal lan ay baay faal yi Sëñ Tuubaa lan kon yàlla na leen yàlla fay yéen tamit li seen i wayjur nekkoon ngeen nekk ci dem ba seen i njaboot nekk ci yàlla may leen ay borom kër yu baax ay tuutànk yu ay murit saadix di ñaanal suñu wayjur Baay Ablaay tamit yàlla yàggal ko fi guddal fanam lool mu yàgg ñoo jiite waaw ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax téewul waaye teewal na waaw teewal na si yëpp nag ndax xam naa ni sëñ bi saa xew xewlee poosam du ko fekke jotam du ko fekke njabootamit duñ ko fekke waaw te loolu doy na sëkk nag waaw li ñuy am murit da dul wàcc rek waaye bu fekkoon am murit day wàcc kon ñu wàcce ko waaye am murit moom du tekki laxasaayi murit du tekki laxasaayi ndax ku ne xam na ni sëñ Manumbe tekkiwul mukk laxasaayam waaw mbanay mu togg ko mu xewee la lool sëriñ bi bëgg lool bu ñaari palaat dugal ci biir këram ne da koy barkeeloo li ci des na nañ ko yóbbu ca toole taalibay sëriñ bu Ahmadou Ndumbe yi ñu xewloo ko yaakaar naa ne tey ji boo fi ñëwee nga mën a wàññi ñaar fukki mën ak nangam yoo xam ne tey du ceeb lépp ak ndawal la kon yaakaar naa ne ñaan ko ko sëriñ bi ñaanaloon nungu na moom nag mu àndi ceeg pësteef ak nungu ak dogu goo xam ne ni booba ba léegi deltuwut ginnaaw ndax yaakaar na tey ji tër nañ fi ñaari nag ak téeméeri ginaar ak nangam kon yaakaar la ko sëriñ bi ñaanaloon nungu na waaye moom it deltuwut ginnaaw ànd nag tey pësteef ànd ceeg mbooloo mi xoolal tey li dajee fii lépp tey te dara ñuru leen lu may liggéeyal Cheikh ma Ndoumbé yaakaar naa ne lii nag xaadim jëlawaat na ci beneen leçon ndax ku biñ ne Cheikh Amadou ñu ne moo daan toggal tey li mu daan bay moom la waa kër Serigne Touba yi daan xewloo te jii ñu ne xaadim li waa kër Serigne di xewloo la nga xam ne ñoo jóge ca Touba fu ne ñëw di ko góob si muy dugub jooju nga xam ne moom la Cheikh Amadou Ndoumbé daan jëbal Serigne ñu ne xaadim mbooloo moomee di ñëw te jii yaa leen war a berneel jox leen ay xéwal loolu kuñ ko wax keneen ku mu boo tëddee doo nelaw waaye moom ànd na ko fierté ànd ceeg xéwal ànd ceeg yéen a joo xam ne posté bi foo ko takku tey weesu na ko kon sëriñ xaadim ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal bu baax sago bi yoon yooyu ni sëñ Mudu Xarim mbake doone sag ci yoonu kër sëriñ Mamour Dendey noonu la xaadim mi doone sag ci kër sëriñ Mamour Dendey ci kanamu sëriñ Mudu Xarim Mbàkke na nga xam ne tey jii sëriñ Mudu Xarim kontaan na xelam dal na ndax lii mbooloo ma fay daje mépp ñu ne sëriñ xaadim yaa leen di jox tey lu ñu xewloo nga togg yii mën yu toll ni yaa ànd ay ndox ak lépp ñu di ko xewloo kon sëriñ xaadim jërëjëf yàgg te wér mbooloo mi ngi ko àndal ñëpp yàlla na sëriñ Touba taxawu ci barkeb Cheikh Amadou Ndumbe yàgg fi bu di ko yàggee taxawu ci darajey sëriñ Touba xaadim rasul na nga xam ne daal ñëpp kontaan nañ taalibe yëpp a ngi lay ñaanal tamit ca kaw ca kanam defoo ko ci ngistal defoo ko ci dara da nga ko def ci lépp ngir liggéeyal Serigne Touba rek soxla woo ci ngistal soxla woo ci dara yow liggéeyal Serigne Touba rek la ñor comme liggéeyal Serigne Touba la ñor nag ñu ngi lay ñaanal ci dara ji Serigne Touba barkeb Cheikh Ahmadou Ndumbe ca kaw ca kanam nga ànd koog mboolu ay laa yow mi diin jërëjëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf Serigne Modou Khary Mbacké moom mi ñu boole ci liggéey bi jërëjëf Serigne Modou Khary Mbacké jërëjëf jërëjëf sëñ Modou sëñ Modou Gueye muy jàmbaar lool ci yoon wi di ku miin lool kër sëñ kër sëñ Mandoumbe di ku miin lool kër ma Maam Mor Mbacke Dendey waaw ku déglu ni mu waxee rek xam ne fekkee na fekkee na te xam na ni mu demee kon lii rek doyaat na ndukk ab soññee ñun ñi nga xam te ne ñooy tuut tànk yi ñu takkaat suñu laxasaay toppaat ci suñu ginnaaw jëwrin yi te xam ni fi teg suñu tànk fala la waaw comme ni soxna Bintu wax sànq rek ñii ku leen topp ñu yóbbu ci sëñ bi waaw loolu bu demee ba soxna yi xamal ko seen bopp di ko wax kon ñun góor yàlla yi war nañu war góorgóorluwaat bu baax a baax a baax a baax a baax xamaat bu baax kan mooy sëriñ Touba xamaat bu baax kan mooy sëñ Mandumbe xamaat bu baax kan mooy sëñ Mamor ak sëñ Sam ak sëñ Modou Xër ñi nga xam te ne moom la ñu booleel ñu doy ñu sëkk nag ñu doy loo leen it nag barke sëriñ Touba xam ne ñun amuñu lu leen ëpp Mbàkke waaw te lii ndimbal la taw féex la te lii maanaam Mbàkke lii ak ñaan la ci ñun daal jàpp naa ne da ngeen ñoo bëgg a ñaanal daal ngeen bëgg ñoo ñaanal xamul leen nu ngeen def ba ñaanal ñu ñaan gu gën a gaaw mooy nga ni liggéeyloo rek waaw ñun saa yoonu liggéey loo dañuy wax amin barke sëñ Tuubaa ndax lii ak ñaan la Mbàkke ñi ngi santaat bu baax a baax a baax ñuy ay jàmbaar ay ay ay ay jigéen waaye comme ni ma wax sànq rek du ñuy yaay faal waaye ay baay faal ndax bëri na góor ñoo xamante ne barke alxuraanu karim liñ mën ci laxasaay man ko ci xidma mënuñu genn wàll te bu leen neexoon comme ni ma wax sànq rek ñu toog ci kaw jàpp seen njàmbur xolal di def ni seeni moroom morom waaye xooluñu lool dañuy takk seen i laxasaay gën koo bëgg sëñ xaarim barki suñ ta li suñ xaalim di def man li may wér mooy ay soxnaam suñ mënoon lu ko ñoom dinañ def lu ko ëpp waaw te loolu nag sant yàlla la kon nañ góorgóorluwaat bu baax a baax te xam ni suñ tubaa lii rek mooy mbiram lii rek mooy mbiram kon soxna Fatou Gueye ñu ngi lay joxaat bu baax kàddu yi bu ko defee rek nga fësal kàddu yi asalaamaaleykum ñu ngi ziar Sénégal ziar waa àdduna bi yëpp kon boog ñu wax bisimilahi rahmaani rahim fas yéene ko yeggale ci alhamdulilahi rabbil alamin comme boog sëñ bàcc li nga ma laaj dama ciy dama ciy sawar ndax mi ngi mel ni góobum déndéy mii ñun amuñu lu dul déndéy amuñu lu dul sëriñ Touba waaye tamit amul lu dul sëñ xaarim si di général di bay faalu déndéy moo tax dañoo bëgg bis bii dañ koy waajal comme buñ yóbboo suba togg yi di dimanche sa lundi ba lañ koy waajalaat pour mu demaat déwén waaye ñu ngi sant tamit xalifa déndéy di sant moom mi ñu booleeg moom ba nga xam ne mi ngi ñu jàppale ñu war a def ci nguub mii ndax moom bëgg ñoo jàppale rek moo tax mu jox ñuy toog bi waaye ku bay ba desul lu ñu récolté war ngaa mën a def sa bopp ay toog def la neex waaye lépp rek dañuy teg naa ko ci loxo waa kees kon boog sëñ Modou ñu ngi koy sant di ko gërëm bàcc nag ñun amuñu ku dul Serigne Touba bëgguñu ku dul Serigne Touba ñun loo ñu woo te wooñu Serigne Touba doo ñu gis amaana nag ndaw na lool xeebu na lool. waaye liggéeyu Serigne Touba fu ñu fa waay woo rek ñu ngi ci ndax mënoon nañoo def ci yeneen waaye bëgguñoo dimbali rek moo tax Serigne Xaadim si boole ñoo ak Serigne ndax mi ngi mel ni sama waajur taalibe seex la woon waaye dama ni Serigne Touba kenn du Serigne Touba koy def te defoo ci Serigne Touba pett nga barki Serigne Bamba Serigne Touba rek moo wóor topp ko rek moo wóor sama xol dafa fees ba maa wax sax xuma sax lu may wax sant rek sant rek. mu maagal teroo gàmmu ba ngóob mi anaka amatul jàmm ginaar li nga xamante ni maam mooy lépp ginaar yu ñuy waajal ci màggalu Tuubaa lu tolloo plus de 1000 poussin mooy dugal mooy saytu mooy xont mooy defar ba nit ñi màggalee gàmm barki Sëñ Tuubaa jël alalam di ci def bàyyi liggéeyam waaw te maanaam fa muy jógee sori sori na sori goo xamante ni yitte yi day miti da koy yërëm mais macha allah moom muy jàmbaar lool waaw. jàmbaar ci xidma di jàmbaar ci poos barki sëñ Tuubaa tey suba dafay ñëw indi fi ay xéewal indi fi ay ndox lu ne indi na ko te nag yamale ko ci sëñ Xaadim daa dem ba yamale ko ci ñëpp ñun ñii suñu jëmm yi boo xewle woon ab daayira rek ni ko sëñ daawar dama ay daayira dina gàddu ay ndoxam indi caféem indi ay wasam man numéro am léegi sax sëñ daawara was laa si bind ndax jàmbaar bëgg teraanga bëgg sëriñ Tuubaa kon sëñ daawara tey bés bii bisub bésub sëñ Mandumbe bi di ngóob mi nga xam te ne mooy dugub yi sëñ Mandumbe ji niy defar sëñ xaadim ànd ak ñun ñu bàyyi la rek nga joxe ci say kàddu fësal ci say kàddu ci bis bi ndax gis nañ mbégte mi ngi ci àndal bu baax a baax a baax amasbillah bismillah inna walillah ñu ngi santaat Serigne Touba bu baax di santaat Cheikhul Khadim bu baax di ñaan mu Cheikh Ahmadoul Mountakha yadahullah wa nazaran a xalifatul am li tarixatil muridiyya mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu ngi jaajëfalaat ñëpp ci bis bi ñu nekk di bisu ngóob mi nga xamante ni bii ndigal lu jëm ndigal la lu bàyyi ko ci sëñ Modou Khary tàbbi ci waa Thiès yëpp ngir ni nanu berndeel ñiy nekk tool ya nga xamante ni bii moo nekk ca Dendey ñu koy góob suba ci njiitalu Serigne Khadim si ñu nekk nag ci ginnaawam waaw te li nu àndee lépp rek di liggéey Sëñ Tuubaa suñ bàcc da koy wax léegi nun weesu noonu ay bokk ndey wala bokk baay wala bokk dara mais pas gi nu bokk moo kawee ñun ba ñuy béggante di safo kenn ku nekk di safoo sa morom waaw ñun nag liggéey suñ bi amuñ ci bu fas yéenewuñ ci am tànk ginnaaw dox jëm ca kanam rek lañ ci fas yéene waaw ndax ci wax nag moom danoo amul lu dul moom amul lu dul moom képp ku nu woo ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa dañuy xelu ñëw waaw leneen lu mu mën a doon mën nañ caa doxeem xel waaye liggéeyal Sëriñ Tuubaa moom dañuy xelu ñëw barke Seexul Xadim ñu ngi ciy sant bu baax Sëriñ Xadim nag sant gi mooy mus ñëwoo ci yëngutu boppam waaye saa buy liggéeyal Sëñ Tuubaa buy tàmbali dana dinañu woo ànd kook ñun te amuñ ci lu muy ñëwante ndax pay gi Serigne bi doon wax naan kuy liggéeyal Sëñ Sëñ Tuubaa duma la ci yërëm ndax bëgg bañ ñu lay fay ma naan war kii maa ko yemale fii wala nangam ak nangam ak nangam waaw Sëñ Xaadim boobu la ci amee moom it nu ngi koy sant di ko ñaanal te ñaanal Serigne Modou Khari mu yàgg fi lool te ànd ko wér barki Cheikhul Khadim ñu ngi bëggee waat ñëpp ñi nga xamante ni bii teew nañ fi di ñëw ngir taxawu ndigal lii ñu ngi leen di béggewaat bu baax a baax a baax di leen ñaanal wax ni tamit liggéey bi nii dong la waaw ndax suñu tubaab dafa wax ni kulli la siina sahalu bi xidmati falahum jaar wasal janat waaw loolu rek nag bu ci yemoon ñu war di ko liggéeyal ba xëy dem barzak waaw kon nu ngi nu ngi ñaan suñu borom saxal nu ci ak bëgg ak yittewoo lu dul ngërëmal sëriñ bi waaw ngi ci santaat ñëpp di ci béggewaat ñëpp fas yéene koo àndee nii rek togg yi noppi incha allah fajar ñu jël ko jébbali ko sëriñ bi fecca dendey asalaamaaleykum wa rahmatullah boole benn la kenn mën koo xar di membre daayira xidmatul xadim di rakk si suñu jëriñ suñ Samba Diop di wóla réew suñ xaarim di jàmbaar lool ci kër gi moom it ku ne xam na ni ku miin sañ xaarim rek miin nga bàyyi Samba di suñu jëriñ moom xam naa yitte yi moo ko tënk ba ñëwul waaye mu yebal fi rakam di mu bokkal ndey bay bàyyi muy sëñ Fallou ñëw fi ci suba ba ñuy taal nekk ci waañu di Serigne Fallou Diop Baye Fall kon Serigne Fallou ay kàddu rek day doon kàddu yoo xam te tey ci bis bi muy ngóob mi nga xam te ni moom la def di ci liggéey bi pour jébbal ko sëriñ bi ñu bàyyi la rek nga jox ci say di wax jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jaaraama Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridina di sant di gërëm bu baax nag ah, ki ñu dajale muy Serigne Khadim Euh, ci li jëm ci ngóob mi nga xamante ne moo jëm dendey moo nekk dendey ñu fas yéene ko amal suba nekk ci xéewal yi di ko defar nii ngir xéewal yi ñu fa barkeeloo fële si dendey ah nga xamante ne nag sëñ moom wax dëgg naa ñun mënoon a wax ci moom waaye nag dañuy wax comme kaddu suñ kaddu mag nga xamante ne sëñ sëñ nga xamante ne bi bi ñu jàppee ngóob mi moo xam ne yitte yi bari na lool mu ni sëñ Xaadim mënuma mënut a am bés bu toll nii di ko war a joxee fële si dendey ah dem ma sama ku toll ci man demul ku mel ne Mamour daal mu xamal mu ne comme nag daayira bi dañoo am daayira tey jii tey dafa xaw a bari mu fas yéene mu fas yéene yabal ma ma ñëw teewal ko fi teewal fi daayira ma xadim gi yëpp tey xam ne nag suñu xaadim moom macha allah lii rek ndax dafa am ngërëmal Sëriñ Tuubaa am ngërëmal Sëriñ Tuubaa moom la ne jox lu lu ñu gërëmee taalibeeb Sëriñ Tuubaa ndax li boo xoolee xam ne ngërëm la ndax li foo xoolee fi taal si mbana nga xamante ni fa mu jëm ñu koy xéewloo da lay leer ne du daayira ma tax waaye mbooloo ma fa nekk tax muy ñuy xéewal yi di ko fa yóbbu kon ngërëm lu ko sëriñ bi gërëm kon nag ñu ko jooy sant bu baax a baax te di ko gërëm bu baax a baax ko ñaanal sëriñ bi sëriñ bi yokk ko ak yokk mbooleem ñum àndal ñëpp xamante ni mbir moom mbooloo koy doxal waaye dafa mbooloo moo xamante ni saa borom moo leen tànn nit xamante ni saa su mbooloo mi jugee rek nit kooku dina mbooloo mi dina ko yëg suñu xaarim nag xëy na bu mboolom jugee mbooloom dina ko yëg ba xëy na suñu wax ci mbooloo mi turam la ne jiital waaye di nuru nag di nuyu mbooloo yëpp ak ci liggéey bi nga xamante ni eh, ñoo ngi koy joxe bu baax a baax di sant nag di gërëm bu béré wéré wéré sëñ bàcc ak jëwriñ yi nga xamante ni ñoo fi nekk ñu ñëpp rek barke xasida yi di wax ne sëñ sëñ Masamba yabal nañu fi ñu ñëw waaye bu amoon yéene mooy mu teewoon ànd ak njaboot gi yëpp waaye xëy na ku ne xam na ni yitte yi dafa bari ak ak lool waaye nag ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax a baax ci kàddu yi sëñ Masamba sant na sëñ a baax di ko xamal ne amoon na yéene mu teew fi lool ak njaboot ñu ñu fi teew nag mu dina fi teewal mbooloom yëpp ànd ko suñ Pastef ak suñ a ba bés bi ànd ak ñoom ba déndee incha allah bi ànd ak ñoom ci góomi ànd ak ñoom ci xéwal yi ba incha allah rabbi lépp mat incha allah rabbi barke xasida yi bismillahi rahmaani rahim maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sant nag suñu waajur yi nga xamante ne buñu naan tooñ ñun moo ñu tooñ bu dee tooñ rek ñun moo ñu tooñ ñun moo ñu xirta si sëñ bi ba lii lépp mën a am tey kon nag ñu koy sant fa mu tëdd di ko ñaanal yàlla suuf oyof ci kawam ñu ngi koy ñaanal yàlla loolu di sant nag ñu ñu bokkal waañ bi yëpp ndax waañ bi tey jii ñëpp fi ñëw waa dakaar waa Thiès ñëpp kenn wuutewu ko ñu leen di sant bu baax di leen gërëm nag di ñaan yàlla lii ñu sumb yàlla na ko yàlla àggali ci barke Seydina Muhammad di sant nag sëñ Xaadim ak i magam ak i rakkam ndax lii yombu ak waa Kër Masamba ñëpp nag ñëpp rek ñu leen di sant bu baax di leen gërëm ndax lii buñ ko manee nee nañu mbooloo mooy doole waaye sëñ bi bañ ne ko mbooloo mooy doole mu ne mbooloo mu boole seen doole mooy doole mooy lii nag kon tey ñu ngi sant nag sëñ Xaadim mi nga xamante ne mooy jëwriñ ji yaa teg ko ci bopp bi ñu ngi koy sant bu baax a di ko ñaanal nag si lu mën ren bu déwénee yàlla na mën lu ko ëpp ci barke Seydina Muhammad di sant sëñ Fallu bu baax a baax tàmbali liggéey bi ak ni nga xamante ni noonu lay demee ndax xam naa ne moom li fi nar a xew lépp kenn mënu koo filmer kenn mënu koo reporter ndax togg yi tàmbali daanaka vingt jëm ba bët neex a def ci ab kon ñu ngi ñu ngi ciy tuubaat bu baax di jégaluwaat bu baax ci kàddu yi lépp lu ci dëng rek ñu xam ne ñun ñu suñ di la lépp lu ci jub rek ñu xam ne mbaaxu sëñ bi la di santaat bu baax di jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba